nañ fexe am ay jikko ndax nit ki bu làmboo ay jikko yàlla dina def ci moom ab taar boo xamante ni ku mu dajel mu gis ko yàlla dina def ci moom worma boo xamante ni ku ko dégg fonk def ci boo xamante ni dajee nit lu tilim tilim nga mën a nekk ak moom boo dajee nit lu ñàkk-ñàkk jikko nga mën a jëflanteeg moom ci sa jikko boo dajeeg nit lu mu dëng-dëng sa jikko mën naa tax mu soppi ànd ak yow ci ak mbaax jikko mooy taar